conférence yi day débuté ak kuréelu xasaayid yi ak activité culturelle bi daal day débuté à partir de 15 heures ba ba nuy naaf la kon loolu ñu ngi ci ñu ngi ci woo ñëpp euh, président Sall ci xéewal yi tamit xam nga murit ak benn ñoo ànd fépp ñoom ñëpp fi la ñu fi la ñuy ndogoo buñ jullee ba pare ku ku mën a reer reer ku mënut reer tamit delluwaat ci kër ya waaye loolu lépp jël nañ ko en charge donc di ci woo ñëpp. kër sëñ Tuubaa yi ak jullit yépp la ndax jumaa jii day jumaay sëñ Tuubaa la jumaay sëñ Tuubaa nag xam ngeen suñ suñ tënku rek moom ñëpp lañ ko ubbil liñ ci wax rek mooy ñu ngi ci pandémie ba nëgë ni mesure barrière yi incha allah ni ko defee dañ ko yokkaat bu baax a baax a baax mangoog euh, yëgsi nañu ci xetu yéen kaay ñu jukkil leen ko fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéen kaay bi jiitu ca fajar ci noone la jiito ca Bruxelles fa la njiitu réew Macky Sall di amal nganam euh, yéen kaay bi am ci taxaw seetlu euh, doxalinu Union européenne doon lu jaaxal lool Walf Quotidien rawatina njiital commission européenne mi mujjuta dalal njiitu mi Macky Sall daanaka ci ab téléphone la jokkook njiitu réew Macky te waxtaan ba gàtt na lool bu ñu sukkandikoo ci ñu yor communication pale ba ñoo ko quotidien yéen cabinet soxna soosé sax mi jiite eh, commission européenne yàggul dara yuuxoo nañ ko ca Turquie eh, jombul loole nag lay bañ eh, ñu laat ko foofee ca Bruxelles noonee la ko Walf Quotidien fësale ci xëtam bu njëkk yenn kaabi di Le Soleil mu ñu dégtal nganuk njiitu réew mi Macky Sall foofee ca Bruxelles ak banque européenne d'investissement ma ñu ne dina ci dugal loxoom Eh, ci projet yu réew réewum Sénégal eh, bokk na ci lam ca nasak lam ca bëgg a def eh, waxtaan gu yaatu nag seq na kook kilifay waa Bruxelles moom jiit réew mi Macky Sall moom la Soleil xëyee tey ci xëtam bu njëkk Dakar Times xëy bëgg a xam Benno Bokk Yaakaar ana ba njëriñ la am rawatina ba njëriñ la amal njiit réew mi Macky ndax daanaka bennoo dañuy xaar ba jaan ba jàll ñu doog a dóor ca watit wa euh, yéen a kab di ñu fàttaliku euh, fàttali ay kàddu maître Aïssata Tall Sall mi xamaloon ci jamono ne bennoo bile daanaka teggewul dara ci wetu njiit réew mi euh, Macky Sall kenn du gis njëriñam xëy na day bàyyi ba na këtt ne jonn ñu doog a yëglu loole nag moom la Dakar Times xëy di ñu ko dégtal lii quotidien di ñu dégtal njiital parti réew mi Idrissa Seck mi partem yëngoo fan yi de Fall Mafa Ba ak ñeneen ak ñeneen ba tax na Idrissa Seck salaat na partem googule am na ñu mu ca jox ay ndombol tànk yu bees eh, kii di docteur Abdourahmane Diouf eh, gis ne tamit eh, mu ngi ci partem dootuñu yoral kenn kàddu ga ñoom ñooy waxal seen bopp bu ñu sukkandikoo ci yéen bi di di quotidien 24 heures mu ngi ñuy dektal Sénégal ak coow ne coow boy ci élection présidentielle yi ñu jëm Euh, bokk na ci njiit réew mi Macky Sall bu yitewoo bu laajee troisième mandat dañ ko ko jox ci lu gaaw te duñ ci xalaat lenn euh, di kàddu yi tukkee ci Thérèse Faye euh, mi ko xamal Matar Ba yéene kaabi di 24 heures xëy ci amal taxaw seetlu. laas mu ngi ñuy dégtal euh, maanaam ñi géew politique bi xumbaatee ci jamono ji rawatina coalition benn Bokk Yaakaar ñi taxaw tembe euh, tàmbale di dagaan baatu wi di amal meeting euh, comité électro yi ñu koy taxawal mel na ni nag dañoo jiitu sax wàccaayu élection locale yi ndax dara yembagu ca te ñoom soobu nañu xaat ci yooyu la wote tànneefu ñi war a jiite gox yi. yéen a kaa bi di euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal euh, yaatal googe nga xamante ne daanaka opposition bi mu ngi koy gën di yaatu euh, opposition googe nag fas yéene joxante loxo xàccandoo dóorandoo. Euh, doon ab say goo xamante ne bëgg nañu am ndam ci élection locale euh, deux mille euh, vingt et un wala deux mille vingt deux gi ñu jëm mu ngi ci yéen kabi di Sud Quotidien yéen kabi di le mandat meeting yi nga xamante ne coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy amal fépp ci réew mi. yéen kabi gis ne xëy na Ousmane Sonko moo jaaxal coalition Benno Bokk Yaakaar Sonko mile xañ na leen nelaw mënatuñoo nelaw ba yandoor saay su ne ña ngay meeting. Euh, di jëmmal njiitu réew mi Macky Sall ndax taxawaayu Ousmane Sonko ci euh, géew politique bi yéen a kii di le témoin euh, gis ne daanaka gannaaw tekk tekkaaral ak ciel gu yaatu gu ñu nemmeeku ci ay ñooñu njiitu réew Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar ay fan a ngi ni kenn sañu toon a addu ñëpp a làq woon tey jii ñu ngi tàmbale amal ay meeting yéen bi gis ne yooyu le meeting daanaka meetingu dóor marto la lépp ngir nelawal njiitu réew mi Macky Sall. le témoin moo ñu ko yëgee les échos mu ngi ñuy dégtal Khalifa Babacar Sall xalifa euh, gu bees gi ndax doxalinam kàddoom gën di déggu Euh, bokk na ci tekk tekkaaral gañ ko xamee woon léegi fippu na euh, ma ngay taxaw tembe ci géopolitique bi euh, ngir waajal élection locale yi ñu jëm yéen cabinet lu jëm ci arène nationale ba ne ca Pikine yàq nañ ko yàqeet ci combat gafa ba tax na CNG fas yéene la mbir ya fu mbaxana doone benn mbër ya ca bëre sax bu ñu deful ndang mun nañoo ñàkk seen licence ndax 16 ya ñu doon fa buddi di ko sànni Eh, te tukkee ci eh, ya noonu la ko yéenekaay bi fësale yéenekaay bi di Vox Populi mu ngi ñuy dektal weeru koor gi ñu ngi ci wàccaay gi waaye nag eh, njëg yi ci marché gi yokkoogul yéenekaay bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk Adji Sarr moom fas yéene clamé eh, ci yoon eh, série googee ñu duppee Cey Adji Sarr dina ko yóbbu ca CNRA eh, bu ñu sukkandikoo ci maître la Diouf noonu la ko yéene kaay bi xamle ne ña moom série googule sax ci saa si la ñu soppi tur wa jëlee ko ci Cey Adji Sarr tuddee ko Balin Kumba Balin yéene kaay di réew mi quotidien ne lu jëm ci xeexum coronavirus njiitu réew Macky Sall xamle ne daañu amal vaccin made in Sénégal maanaam garab goo xamante ne dina mun a xeex coronavirus te defaree ko fii eh, ci eh, réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci saytu gëstu bi nga xamante ne moom la Institut Pasteur eh, di amal ci xeexum mbas mi di Covid 19. yéen kabi di Le taxaw ci wàllu xew ndaw ñi njiitu réew Macky Sall xam ne yàggut ne lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards yu mu jukki ci weeru maar mais bi ñu jëm fas yéene cee taxaw. ndaw ñi ci wàllu xëy waaye nag njàng meek njàngale mi euh, dina ci cëru dañ ci recruter lu toll ci juróomi junniy jàngalekat recrutement googee ak yan wu jàngalekat la ñu war cee jël euh, bokk na ci jàngalekat yi ne bëgg nañu mu doon recrutement bu mucc ayib waa COSYDEP ne euh, nañu xool itamit ña ci am lijaasa ñu mun leen a jàng ñu mun leen a jël ci njàng meek njàngale mi Direct News xëy wutali euh, Saloum euh, fa mu tëdd moom euh, juge Samba Sall mi génn àddina yàggut yéene kaa bi xëy di delloo njukkal di sargal juge gu xereñ te ñu ràññeeku ci réew mi bokk na ci jaar-jaaram itamit ca kilifteef gamu am bennoone muy génn àddina yéene kaa bi di Direct News xëy di ñu ko yëggee tribunal turbine xëy du ñu dégtal itamit gannaaw génn àdduna juge Samba Sall yéen a bi ne xëccoo ga nag euh, tàmbale naa am ca euh, magistrat yi kenn ku nekk bëgg na ko wutu euh, ca ndombol tànk gamu ne woon mu ngi ci turbine yéen a cabinet l' observateur ne bonjour comment ça va comment va la santé bu ñu ko waxee suñu xel dem ci woykat bi di El Hadj Ndiaye mi ñu ne dafa am jafe-jafe wér-gu-yaramam dafa am jafe jafe yaram ndax AVC gàkko dab yéen a cabinet tax na mu ngi ci coono gu métti ci dund gu métte métti euh, na mu def ak euh, AVCM googule yéen a cabinet di l' observateur xëy na waxtaan ak euh, ki yàgg bégal Sénégal ci wàllu musique moom El Hadj